Kaolack dañ fi ñëw pour aggalé ben projet projet bo xamé né dafa Yag, parce que ñun suñu mission moy assister les chargeurs donc ñu amoon projet qui xamé né c'était la mise en place de la bourse de fret bourse de fret su ngeen ko déggé lieu de rencontre virtuel entre l'offre et la demande donc euh, place où le colo entre ki soxla transport ak ki yore marchandise bëgg ak yor oto tamit soxla tamit marchandise bu muy yobbu donc dañu gis ne auto yu bari suñu dem aller retour bi dañuy vide donc à travers plateforme bourse bi dinañ mën a assurer seen frais de retour sa frais de retour soo ko assuré dina tax njëgu aller bi xaw a yomb looloo tax njëgu aller bi xaw a jóg tuuti donc si cadre boobu moo tax ñu naan dañuy jóg so comme que ñun suñu mission mooy jàppale le chargeur ce chargeur bi sooy xool chambre de commerce bi mooy chambre de commerce momi wax l'entreprise la maison de l'entrepreneur donc pour nga jappelé chargeur bi il faut que nga jàppale chambre de commerce bi motax ñun ñu développer projet bi def ñaari étude def si xaliss ba paré jël étude bobu application bi développer ko au COSEC ñew wan len ko naka ni daw ñëw non fi wan len projet bi ñom ñu outat ay xalaat yu ñu si yokk wax des inputs biñ ko si yoké ñu defar ko léegi tey ñu def ko en ligne àdduna bi yëpp foo taxaw soo cliquer tu as le site tu peux négocier le fret mën nga xool ku yore marchandise yow en tant que transporteur mën nga xool ku yore marchandise nga waxaaleex mom, xool l'offre la moins disante nga jël ko amu yóbbul la sa kii marchandise transporteur bi tamit da siy gis boppam même entrepositaire bi moi qui yore ay entrepôt et hangar mën na dugg xool ku yore marchandise war ko dit ku le ni xorom que j'ai les fii bëgg ko yóbbu Dakar si si nawet bi sa à partir de là négocier Dakar fan Dakar nga war am entrepôt de xoram en sécurité ba vous ngay gis ay clients parce que am ñom day dem ba Dakar soko xol client donc soko tégul ci place bu baax boobu da am problème donc même bi da gis si plateforme bi. en solo trop euh, bourse de frais bi ñuy def parce que lii sax jéem jéem nañ ko fii ci chambre de commerce bi fii amoon na benn plateforme boo xam ne dañ ko fi defoon di jël base de données boo xam ne dafay regrouper transporteurs yi ak ñi nga xam ne ay chargeurs lañ maanaam dañuy soxla ku leen di transporter waaye loolu dañ ko doon def di wootante ay téléphone donc tey bu fekkee ne dañu am bourse de fret boo xam ne danga ci mën a Euh, inscrire mën ci dugal bu fekkee transporteur nga dugal ci oto yi nga amee wane aussi disponibilité oto yi ak capacité yu ñu am am aussi euh, bu du fekkee chargeur nga damay jox benn exemple comme nous région boo xam ne dafa am vocation agricole am ay opérateurs yu jënd ay gerte gerteeg yooyu noonu di ko war a yóbbu ci usines yi léegi-léegi dañu am ay problème pour am oto ñu xam nga kon daf leen di soxal donc euh, lii moom mm, lu am solo la te mm, dinañ ci gërëm aussi COSEC vraiment euh, qualité bi mu oolu chambre de commerce dénk ko ko mais aussi li mu ko jël sax def ko région pilote parce que fi mu nii dañ koy commencé Kaolack euh, bu fekkee ne dem nañ ba ci kanam ñu doog ko vulgariser.